gis ngeen coow li nag ndeysaan coow li li ko waral mooy ku ne xam na ni gox bi day goxu lebu ñoom ñëpp ku ne am yéene ci booy bi xër ci booy bi maa ngi ci seen doomu dàngu mi ngi ne maa ngi ci seen gàmmu gëy waaye problème bi mooy pour pour ñu mën a wàccee ki nga xam ne moom mooy Papa Yade numéro 2 mooy problème corbillard bi ba mu gaaree yàgg na waaye pour wàcce ko mooy problème gis ngeen mbooloo mi te Malick lii buñ ko jëlee war koo jébal boromam tey buñ sàgganul dana fi gis image yu waar parce que pour ñu dugal ko ci armée lii dana miti kenn kenn ku ne mën tëtee sa morom waaye nanu dal xool ci sunu sang bu tedd bi nga xam ne barki démb la génn àdduna te dencaguñu ko muy sang bi nga xam ne doom ci Cheikh al Mawlaana nga xam ne ku baax la koo xam ne la ko wee juróom wa dénkoon lépp def na ko denc gunu ko ñu koy jàll waa Kaolack di ko jàll waa Medina Baye di ko jàll képp kuy julit waaye nanu dal te xam ne Papa da sunu borom lim moom la jël sunu moom lim moom la jël bu nu gaañante nanu def ndànk te xam ne réew mi ñoo ko bokk tey nag gis naa fi mbër gis fi promoteur gis fi ku ne gis nga Sa Thiès noonu di rakk Balla Gaye 2 gis naa ko fi léegi loolu moo lay wan ni réew mi daal ñoo ko bokk. waa jiili jiili bi ma la nuyoo di la siyaar di la jàll nu bokk lii moo la wan ne àdduna boo ci nekkee nekkal ci lu baax Papa Yade bi mu tàbbee ci làmb yàggul waaye lii tàbbi na ci ab mbir def ci ay at taamut lii lii lu koy maye. dëgg la yar ak teggin ak delloowaat lépp ci suñu loxo suñu borom moo Cheikh du Fadel ba ma gisee mbooloo mi sama yaram dafa daw ñii nga xamante ne ñoo àndoon doon bokk liggéey bi ñuy def muy làmb tey ñoom ñëpp ñoo ànd ak moom gunge ko ci gungeem bu mujj bi ñuy ñaanal Papa Yada xale la boo xamante ni làmb amoon nañ ci moom yaakaar xale la boo xamante ni boo dugg si woon di nga am yaakaar nga ni dina doon avenir ci làmb waaye ndeke nit ki day décider rek waaye yàlla moo yor dernière décision bi ñuy ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni waaye mel ni xel dal na ci moom parce que li li ko topp ci ay doomu aadama ñàkkul kenn ko xam ne bu ci ne allahu yàlla nangu ko dëgg la moo tax gémmiñ gu am barke suñu borom dong ko xam mbooloo mi ko gunge rafet nañ njort ni yàlla suñu borom dina ko xaare ci àjjana yi firdaws si yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana te yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam papa yadda rafet nañ ci moom njortu ndax gis nga mbooloo mi nga xamante ni moom lay àndal Cheikh Mouhamadou Fadel kenn mënu koo may ngir mu wàcc oto bi ngir cofel gi ñu am ci moom ngir bëgg-bëgg gi mu am ci moom ngir yërëm gi nga xamante ne yërëm nañ ko waaye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax en tout cas lu mën a xew daal mooy Cheikh Mouhamadou Fadel ah. xool xool tooy na xool tooy na loolu la jiiri borom wasaare wax di sama frère di taalibe seen Tuubaa di ku bëgg seen Serigne Saliou di nit ko xam ne nit ku baax ku sell nekk ci wasaare di liggéey liggéey bu am solo kon li ma naan nag eh, yëf yi ñu ngi ko wàcce nanu ko war koo dugal ci biir jumaa ji ngir jébbal ki nga xam ne moom mooy mooy jébbal ko moom Harun Quench ginnaaw bi ñu leen nuyoo di la masaw di la jàll nu bokk bëggoon a xam sa diggante ak Papa Yade ci lu gàtt. waaw mais Papa Yade moom ni ñu xam si moom bëri na lool dañ ne kay ku ne man na ko jaal sa borom ku ne mën na jaal sa bopp parce que moom mooy nitu nit ñi boo gisee liñ fi gis nii rek nga xam ne nitu ñëpp la. comprendre nga dañ koy ñaanal nag yàlla mi am yërmande moom mu yërëmoon ñu ko dafa soriyoon suñu xol ñun ñëpp fii kenn ku si neex. boo xoolee xolam Papa Yada yàlla yéenam ko jéggal ko rek nga si am parce que jàmbaara si nu muy def képp ku ko bëgg si jàmbaaram nga ko bëggee kon ku mel noonu buñ ko ñàkkee tey day métti fii ku ne jóge ak dëkk bu ne fu waay ne jóge fa ñëw teew gis nga mbër yu mag yëpp comprendre nga tey buñ ñëwee si moom muy booy mbër moo xam ne xale la tey boon nga xam ne amoon na cër si làmb làmb yaakaaroon ko tey loolu yëpp yàlla weddi mais dañ koy ñaanal yàlla mi am yërmande mu yërëmal ñu ko mais dafa doonoon complice moom ak yaayam parce que man dama doon dem seen kër yaayam sax dama doon wax na ne papa Yada yow laa ko may ndigee boo waxee mu ne ma yow danga yaru dama bëgg mu roy si yow mais lépp rek tey mu doonoonoo yaayam complice doon xaritu yaayam dañu doon kaf di bëre comprendre nga bu doon bëree bu génnee rek nga gis yaayam topp si gannaaw bu amee combat yaayam fu ne lay dem fu ne fu ne comprendre nga kon kooku bu ko làmba ñàkkee day metti moo tax dañ koy jàll àdduna yëpp di ko jaal Sénégal gi yëpp di ko jaal département de Rufisque bi di ko jaal mbokku mbër yëpp di ko jaal sama mbokku mbër yëpp di leen ko yéen ñi nga xam ne fu làmba yegg yéen yéen a tax site internet yee télé yee yëpp maa ngi koy jaale ñëpp mais métti na nag mais inna lillahi wa inna ilayhi raji'un si yàlla lañ jóge yàlla la ñuy dellu lii mënul woon ñàkk ñu témoignage si moom mais xam nañ ne jullit la xam nañ ne Baye Fall la xam nañ ne taalibe Serigne Touba la xam nañ ne taalibe Cheikh Ibra la amaana yaakaar ba mu amoon Serigne Touba yaakaar ka Cheikh Ibra te yal na ko yàlla fay tey si biir bàmmeelam Serigne Touba daa amoon lu nee na ku ma bëgg mu dëggu si boo duggee si biir bàmmeel doo fa wéet dinaa la fa fekk dañuy ñaan eh, yéene boobu Serigne Touba amoon si jaamam yaan na ko mottali tey si Papa Yada. wallaahi maam jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. saa ginnaaw bi ñu la nuyoo di la masaw di la jàllin bokk bëggoon a xam seen teg Papa Yada ndax ko ne xam ne géejawaay ak Tëngéej sori na. waaw jàmm la rek mais làmb mooy jur yu bëri làmb jur yu bëri tey suma diggante moom bu ci raxee dara lu rafet la lu baax rek jëmm ji taxaw la moom moo ko présenté moom mu nekk suma waay ju baax a baax ndax tamit mu ngi dëkk fii teew su ma amee moom di ci taxaw comme booyam la mu présenté moo ko ñuy déggante téléphone yenn saay mu yéene ma lu baax ma yéene ko lu baax li jëm ci carrière am ak àddunaam ak lépp suma baar la. ban cër la la joxoon. respect am na respect am na taalibe dëgg yàlla ni ko ni baax la man noonu laa gis ci moom yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana parce que àdduna lii rek la waaw maa ngi nii ak maa ngi dem te comme tey fii lañ toll nag yàlla rek a yor ñu ngi ñaan yàlla ci yërmandeem yàlla teeru ko àjjana bi gën a kawe ci barke Seydina Muhammad. ñu gis naaj bi tàng na yéen a ngi xaar depuis kañ ngeen taxaw ci naaj bi. waaw ñu ngi toog di patienter rek. waa est bi nag xëy na mënuñoo gis leen rek lu def li nga xamante ni moom la yàlla jéem santaane. waaw jërëjëf waaw

la la la